Ouzin lan nga bëgg a laajte ci internet amuloo question bu nekk sa bopp. non see euh, xam nga euh, internet. waaw ah. euh, neex na neexul. Mhm. yenn saa yi da gis su benn fan foto yow. Mhm. nu mu lay côté am ñoo la fóon la xam-xam la dafa mu def ko si internet daan ne ku mun a mun a mun na kaa rax am na fan yoo xam ne kay rax. Mhm. naan sama fan naan du la sama fan naan Ouzin temps ñuy génn ñuy kii pour. xam nga tam photo photo bu fi génn fóon la wala dara ñu dégg la fóon la xaw ma gën a xaw ma fóon fu génn mën a jógee. waaw mu fóon la na ñàpp si si internet. waaw eh, kii ko. si kii bi. waaw si site yi. waaw site yi ñun ñëpp di coow. Ah. sax. defoo dara yow yow yow ñooñu ñu ngi message si net. Mm-hmm. yow jàngoo. comme que ma nga naan di nga nga naan xaamaa nga si ñëw foofu. kon nga ne kon nga ne nit. <laughs> yéeme ma. nit lii la dugg sa site def lu la neex jaxase. ah kon yow boo jotee message par exemple ci internet da ngay jox nit ne ko liiral ma. non waaw man kaa man neex naa xel bi day sant. man neex naa xel. Mm. damay damay takkale am na loo xam ne maa koy am loo xam ne. di doon sekkal sama bopp a xool kenn ma ko xoolal. Mm-hmm. ndax ni dafa lëndam. Ah, comme yan par exemple. nit mun nga ànd nit. nga ne nit daal dafa lëndëm daal. ok ok junj dana borom xel. waaw léegi divorcé nga ak euh, ak Mounass actuellement am nga am nga koy bëgganteel. non fu mu toll xam kan laay bëgganteel fu mu toll nii xanaa sama aar bi. Ah, dëggoo ma de xale nga et ñi dañ la topp non. waaw topp na ma macha allah waa ndax damay xale damaa war a tara nday war amaguma kër amaguma oto dëggoo ma de. Uh-huh. kon boog damay xam laa ñaan yàlla fu mu toll nii yàlla may ma kër gu ma sutura dugg fa sama yaay. Mhm. si barke Seydina am bu ma pare. Mhm. ma soog a xool jabal fu mu toll jabal du ma gën fa sama sama bopp ndax dafa am loo xam ne ma kaa tal. Mhm. ndax man ñi may xam a aar tey sutura moo fi nekk. waaye mais am na ko nopp yow. ma maa ngi ñëw xam nga tey euh, aar bi la. ah da nit ku nekk da nit boo tukki demee ñëw ñëpp ne yaakaar yaa ngi àdduna si biir. bien saa géej naa dafa taraanga sa koo woo. Uh-huh. Ouzin Keita yaa ma tane yaa ngi tukki yaa ngi dem ñëw fekk xamuñu sax la euh, sutura. Uh-huh. bakki aw ma dërëm maa waxoon. da nga fi. gisaguma kër gisaguma oto Marème Faye Sall sama <laughs> la ñàkk xol moom. waaw loolu ñàkk. waaw loolu mënut a ku la neex sax nga koy xool mu lay neex. Ah, même bu yaa ngi bëgg sa xol. Ah, mu ñoo neex ka bëri na. mel ni ku mel ni moom bisu. ah du du wax tur nag. <laughs> waaw c' est waaw kay mu may la biisu bopp. biisu la. ah yaa ngi moom ma fa ne yéen a maase. yéen fekkandoo sabar ah kon doo moom. waaw oh, c' est que ah, non ma jox la ma jox la Kia. Kia. Kia kon am naa sama benn jigéen bu tudd ku ku neex. ah loolu la. <laughs> sama xayma eh, ñu eh. na ñu ma Ouzin Gueye xam nga ma faa la ma lu tax ma si nit bi nga ànd nga àndal ak man ko loolu àdduna. Mm-hmm. dëgg la dëgg la ah, ñoom nee nañ ne keeg si ànd nañ ne ko di kaf dem sa sa sama xayma gën a neex si àdduna. fu fu fu toog doon ñaar. ndeysaan a jóg biis ko ci télé oui ah. mu mu mu. non non ñu xool ñu xool ñu xool. dinañu interpellé bu tax bu tax faral koñ ma song ma. waaw koñ bi dañ lay song ah. allez Ouzin tu restes avec nous parce que dans quelques minutes di nga ñu woyal. Ouzin ñu préparé ñu préparé ñu préparé woy bi comme ça nga ñëw woyal ñu on va parler maintenant de.